Euh, monsieur Bocoum euh, Amady Bocoum ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa di fàttali suñu auditeurs yi ne historien géographe de formation la doon tamit professeur chercheur spécialisé ci wàllum archéologie euh, jiite wala sax tey jii nekk directeur musée des civilisations noires ñuy waxtaan ak yow ci bés bi ñuy màggal journée internationale des musées ñu koy màggal ci adduna wérngel képp ndax Sénégal mandargal googu dañ koy amal fii. mbootaay boo xam ne moo lu jëm ci musée ci àddina bi ñu ngi ko wooyee ICOM. Mm-hmm. ICOM boobu euh, réew bu nekk da am si commission. Mm-hmm. ñun fii am nañ suñ commission national mu dox euh, tabaarkàlla bu baax a baax. Mm-hmm. musée yëpp ñu ngi ci euh, def ay jéego yu am solo. moo tax at bu nekk comité national bi tey def ay activité dañuy ñaan musée yëpp aussi. ñu góorgóorlu pour que nit ñi di gën di ñëw ñun par exemple musée des civilisations tey journée porte ouverte la ñuy def mhm. maanaam suba moom ku mu neex nga ñëw doo fay te médiateur yaa ngi foofu di la teeru di la dalal et puis euh, expliquer lu am ci musée bi suba aussi bu soobee yàlla musée Théodore de bu Cheikh Anta Diop mhm. dina def grande réouverture am ay exposition yu fa am donc daal euh, journée bi Sénégal dina ko fêter ni mu waree nga jàpp ni euh, bu weesoo porte ouverte yooyu ngeen def lan mooy solob su xumbute gi ndaje gi. waa xam nga musée euh, boo demee ci réew yu bëri. Mhm. da nga ko ciy fekk ay béréb yoo xam ne ku nekk dañ ciy bàkku sa aada ak sa cosaan dañ ko ciy wane. Mhm. Euh, ñun nag yàlla def na ni musée des civilisations noires aada ak cosaan li ñu wane yëpp nit ku ñuul. Mhm. boo nekkee Afrique boo nekkee Europe boo nekkee Amérique. am nga ci wàll am nga ci place. Hmm. donc suñu bàkku di yem ci Sénégal rek di yem ci Afrique rek ku ñuul suñu bàkku hmm. dina ko ko weesu dina ko weesu parce que boo ñëwee civilisé dañ lay wan ni nit ci Afrique la sosoo nit ñun doomi aadama. bu hmm. gën a yàgg fii la sosoo fii la jógee donc loolu dafa am solo dañu war a tout le temps di ko mandat daal di ko wane pour que africain fu ñu mënta nekk rek bu ñu nekkee sax Australie ou bien pôle nord. Mm-hmm. ñoo xam ni foofu la bokk parce que yëpp yi kii la sosoo. ndax dafa am thème bi nga xam ne moom la ñuy euh, màggalee bés. waaw mooy mooy màggal ñu ñu ñëw tamit ci euh, benn mbir euh, tey jii. ñu bëggoon a xam ndax dina tax yéen ñi fii ci Sénégal musée yi ngeen waxtaanee ci seen i jafe-jafe ak it ut ay solution su ko defee askan wi gën a jege wala sax gën a xam solob musée yi fii ci mim réew. waaw jafe-jafe yi moom bëri na trop parce que musée xam nga moom lu gën am solo ci musée mooy. boo ubbee li mu ñëw. Euh, fii ci Afrique dañu xool ba gis que musée yi lu gën a bëri bëri touristes yi ñoo ci ñëw. Mm-hmm. Euh, il faut ñu def de telle suñu mbokk yi ñi ñu bokkal réew mi. Mm-hmm. africains yi di yaw touristes yi di yaw di mm-hmm. ñëw ku nekk mën ci gis sa bopp. Euh, musée yi boo xoolee lu gën a bëri ci. temps tubaab yi dañ ko fi def. Mhm. lii wane mooy lu tubaab yi bëggoon gis. tubaab yi lu ñu bëggoon gis mooy euh, ñoom ni ñuy xoolee. Mhm. xam na ñoom dañ jàppoon ne fu ñun amuñu aada amuñu cosaan ay tubaab la ñu amuñu civilisation. Mhm. doon wane dañu wane aussi loolu benn africain daan woon dem ci musée xam ne dem jàngi ñëwaat def ne am nañu xam-xam ak benn civilisation bu lu ñuy jéem wane léegi. mooy suñu aada yi ak suñu cosaan yi ak suñu maam yi luñ ci defoon ak exemple liñ fi indi mhm. boo demee par exemple léegi suñu musée yi taarixa yëpp dañ nga koy fekk foofu loolu mosul am fii yi mhm. suñu taarixa yee tijaan mu ngi xaadra et cetera et cetera ñëpp dañ leen wone wane foofu mhm. boo demee suñu musée tey euh, nga naay bi euh, El Hadj ou bien ay bagages yoo xam ni sëñ Bamba moo ko doon jëfandikoo ñun dañ koy wone foofu il faut que nit ñi xam ni am nañu ay aada ay cosaan yu wër am nañu ay kàngaama yu rëy. Mhm. ñooñu il faut ñu wane leen ay exemple la ñu. boo diggee bu muy fii liggéey bu nga gis ku mel ni Cheikh Anta nga xam ne kii am na lu mu defal nit ku ñuul lu mu defal Afrique. Mhm. di nga gis Senghor di nga gis Blondin euh, jeune Blondin Diop ak yeneen ak yeneen di gis Thomas Sankara mais di nga gis sax Lewis Hamilton tey booy xool course automobile te huit cent mille tonnes lu mu ciy def mais dafa dafa dafa doy waar. Mhm. dañuy wane aussi George Floyd parce que nit ku ñuul am na foo xam ne dafay sonn loolu dañ koy wane donc ñun daal civilisé bi. Mhm. nit ku ñuul foo mënta nekk ci àdduna bi rek démb ak tey buñ ci mënee wax bu ñu amee euh, pas pas fit mais simplement moyen. Mhm. wax mais duñu jékki-jékki rek waa déedéet lu ñuy wax lépp lu ñuy wax. dañuy dajale borom xam-xam yi waxtaan nañu a ah, ñun de musée bi nii lañ ko gisee nii lañ ko gisee waaye sénégalais rek de fépp si Afrique fu mën a indi dañ lay indi. si mhm. Amérique dañ lay indi. si Europe dañ lay et puis affaire ay chercheurs yoo xam ne ay tubaab dañ leen di invité wu suñu waxtaan ak ñoom donc musée bi espace boo xam ne dafa ubbeeku la. d'accord ñu sos daal mooy suñu aada suñu cosaan ñun dañ koy mbubboo mais dañuy waxtaan ak ñeneen ñi. ku nekk indi li nga mën indi ñu ànd dox daje. ci dox daje googu tey ngay euh, directeur euh, du musée des civilisations noires nee nga suñu aada dañ ko fay def waaye it dañuy ubbeeku ñu bëggoon a xam ku lay déglu tey euh, bu nee musée des civilisations noires kon mën na jàpp gannaaw li nga wax ni ne suñu aadaan ci biir naam waaye leneen li nga xam ne moomuñu ko moo ngi ci biir. waaw waaw mu ngi baax par exemple temps yii lay mën a mën ci Leonardo da Vinci. am ñu ciy laam-laamee. Mm-hmm. fàttali leen rek Senghor boo xam ne mooy maam yi maam yi ou papa yi Médina Sine. Mm-hmm. Euh, indi na fi Picasso. Mm-hmm. nga xam ne moo gën a rëy moo gën a mag ci peintre européen yu mujj yi. Picasso day ñun daañu ko fi indiwaat bu soobee yàlla te ak bi ñëw donc musée bi euh, moom sa bopp euh, dënn sa bopp tagg sa bopp. taxul te warul tax keneen ki nga bub nga bubbee ko leneen. Mhm. keneen kii yooyu da nga ko war a ko war ne asalaamaaleykum. da nga jéem a war a xam moom mooy kan. Mhm. mu xam yow yaay kan ku nekk eh, da ngay gisee sa bopp. comme ça bu ngeen doxee da ngeen dajee boo leen dajee di ngeen waxtaan bañ a dóorante loolu loolu mooy suñu suñu suñu objectif. seen taxawaay ñu inauguré ko depuis deux mille dix huit tey jii boo doon xayma ndax euh, mën nañoo am benn pourcentage ci wàllu visite yi ñiy ñëw di xool lan moo nekk ci musée des civilisations noires. waaw euh, xayma comme ni ma la ko waxee sanq ci euh, nasaraan. Mhm. dina xaw a jafe parce que ñun dañu ubbi musée bi rek dix mhm. Covid bi dam ñu mais ci dix yooyu fukki weer yooyu lay. classement bu Time Magazine def nga xam ne mooy euh, journal bu gën a parmi yu gën a rëy mhm. ci monde bi at bu nekk day taamu téeméeri établissement mhm. ci àddina bi mhm. yoo xam ne daf koy diglal ay lecteuram ne ah boo bëggee gis dem leen fii def leen am na ay musée am na ay hôtel am na ay restaurant am na ay plage am na ay béréb yëpp téeméer la ñun bokk nañ ñu wax ne rek musée bi bu mu jógee buñ ko inauguré par son euh, président de la République le 6 décembre. Mm-hmm. Euh, 6 décembre 2018 la monsieur euh, le président de la République Macky Sall la ubbi musée bi. Mm-hmm. boobu 10 mois après foofu la ñu bu ñu dalee te ñu toog ba xam ni Covid bi moom du demee nii il faut ñu nangu ni que dañu war a moom. Mm-hmm. moo tax ñu ànd ak. Euh, agence sénégalaise promotion touristique vraiment xale bu baax moo fa nekk ma Awa euh, Diouf ñu ñëw ak ñoom ñu liggéey ak Veritas pour kaaraange yi ñu war a def ci musée bi pour public bi war a ñëwaat. Mhm. léegi kaaraange yi mot na yaakaar naa ne public bi dina commencé ñëwaat peut-être euh, fekk fin d'année ñu mën a am ay chiffres yu bees mais chiffres yu njëkk yi moom dix premiers mois. Mhm. je pense que dañu amoon fii ci musée.

et puis mu sant ñaari borom xam-xam Serigne Sarr ak Bénédicte Savoie mm. Serigne Sarr sénégalais la Bénédicte Savoie française la di liggéey Allemagne ñu mm-hmm. def benn rapport boo xam ne bu doy waar la wante bu dëgër wane ni que yëf yi dañ ko fokkati lu ci gën a bëri dañ ko sàcc dañ ko nangu mm-hmm. dafa war a delloo président euh, seen aada ak cosaan ak lu ñu aakimoo seen loi daf koy protéger. Hmm. donc à chaque fois il faut ñu def benn loi pour génne. par exemple sobre élargissement boobu la dañu mujj def benn loi pour ñu delloo ko Sénégal mais dellu na. Sénégal aussi mu ngi taxawal benn euh, commission boo xam ni day dafa inventé lépp loo xam ni suñu aada suñu cosaan nekk ginnaaw réew hmm. daañu ko identifié bu ñu identifié ba pare ñu laajte pour ñu delloo na ko ñu delloo ñu ko donc je pense que loolu dina am lenn euh, a moytu Mm-hmm. mooy suñu aada ak suñu cosaan. Mm-hmm. chaque jour la chaque jour sénégalais yi ñu ngi fent ñu ngi defar lu bees dafa yooyu warul ñu ko bàyyi mooy dem il faut que ñuy collectionné il faut que musée yi di jënd di denc. Mm-hmm. artistes sénégalais yi artistes africains yi lu ñuy defar donc li amoon démb mënul foofu nañ ci teg bët lépp lu ñu mën a euh, indi mu dellu si. ñu indi ko wante bu ñu fàtte ni que création dafa continuer aada ak cosaan amul terrasse bu ñu taxaw. dañ mhm. continuer donc euh, nañu laajte li amul démb mais bu ñu nekk ci rétroviseur bi il faut ñu xool lu nekk suñu suufu tànk ak lu nekk ci kanam. Mhm. loolu bu ñu ko deful ay nitu démb la ñuy doon te ñun nitu tey la ñu. Mhm. te dañuy jëm ci kanam donc bu mu nga nekk nitu tey rétroviseur bi lu mu lay dimbali rek mooy nga xam li amoon nga am ay repères. da ngay amee repère rétroviseur bi dafa lay may nga am ay repère mhm. repère yooyu daañu la dimbali pour sa taxawaay ak sa kanam mais boo toogee rek maa ngi ci rétroviseur bi maa ngi xool ci ginnaaw doo avancé mukk donc loolu la donc euh, restitution bi oui ñu ngi ciy liggéey il faut ñu delloo suñu bagage yi ñu soxla mhm. mais bu ñu fàtte suñu bopp bu ñu fàtte suñu tey bu ñu fàtte nañu xalaat suñu ëllëg d'accord monsieur Bocoum Amady euh, Bocoum merci beaucoup. merci à vous. may fàttali ne euh, yow yaay directeur musée des civilisations noires bu Dakar.